alhamdulilahi rabbil alamin wala hawla wala quwata illa bika ya aliyu ya azim xasbuna allah wa nimal wakil alhamdulilahi alladi nabaa almaa min bayni asaabii nabiyi sallallahu alayhi wa sallam sayidi al awalina wal axirin nabiyu rahma alladi arsalahu llahu rahmatan lil alamin salawaatuhu wa salaamullahi alayhi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari al azim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 guddi gi nga xam ni guddi la goo xam ni junni naa ko démb ci waxtaanu démb bi wax ni xayrun min alfi la guddi la goo xam ni moo gën junni weer yu nit concentré wu doon ko jaamu yàlla te su cee mooy yàlla loolu xam nga ni kon ay at yu bari la ay at yu bari yu nit toog mayu ko yàlla di ko jaamu yàllay nangu dajeeg benn guddi gu nekk ci fukki fan yii mbokk yi mu ëpp loolu doole kon xam ngeen ni guddi gi am na doole moo tax nitu yàlla wax ne ixwaan yi fi haazihil ashra mubarakatun laylatul qadri allati sharafaha allahu ala gayriha wa manna ala haadihi l ummati bi jazili fadliha wa xayriha ashaada allahu bi fadliha fi kitaabihi l mubin mu ne mbokk yi suñu xoolee ci fukki fan yu barkeel yi ñu nekk nga xam ni mooy fukki fan yu mujj yi mu ne ci la yàlla roof guddi gu ñu tuddee laylatul xadri guddi googu nag moo teral fukki fan yu mujj yi parce que benn guddi goo xam ni day tolloog wala day weesu day ëpp day ëpp doole junni weer yu nit jaamu yàlla xam nga ni wane ne kon guddi googu guddi gu am doole la kon teral na fukki fan yu mujj yi te loolu it yàlla fësal na ko mu leer nañ ci téereem bu tedd bii di alquranul karim fi yàllay wax naan inna anzalnaahu fi laylatin mubarakatin Ah, guddi gu barkeel a ngi ci fukki fan yi ñu nekk mbokk yi guddi gu barkeel ndax inna anzalnaahu fii laylatin mubarakatin la suñu borom wax yàlla moo ne ma wàcc alquran ci guddi gu barkeel alquran ban guddi la wàcc guddi gu ñu tuddee guddi laylatul xadri laylatul xadri ci la wàcc yàlla wàcc alquran waaw guddi googu nag ci fukki fan yu mujj yi la ne ñu koy wër sunu borom na inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim mu ne ci guddi googu ma wàcc alquran di guddi leetul xadri guddi googu ci lay tàqale mboole mbir yi te mbokk yi guddee ngi ci fan yii bu jara bàyyi xel ci la yàllay toog ca biróom ci guddi googu musaa defaraat dossier yi waaw kenn ku nekk moo waxaat ci at mi ci lan la ci lan la ci lan lay jëflanteeg yow Ibrahima kenn ku ne fi mu toll nii ci at mi guddi yi ci la yàlla organise waat sa dund ci at mii di ñëw léegi nga dégg ñu naan lu xew dañ naan dogalu yàlla bindoon na ko ci yow ba pare am na loo xam ne danañ ko changé ci yow te bindoon nañ ko ci yow danga koy ñaan ci guddi gi ba yàlla changé ko am na koo xam ne yàlla laa defoon du am xaalis ci at yii mënte ni ci guddi yii benn guddee nga ci guñ tuddee leneen xadri yàlla mën na changer mbir mi ne diw ci at mii ñuy dugg ci laa koy jox alal ju bari mbokk yi guddi gaa ngi noonu de ñuy wëraale ci biir guddi gi moo tax ma ne guddi yi du guddi nelaw guddi yi guddi jaamu yàlla la wa min barakatiha bokk na ci barkeb guddi googu nag ñuy wër ci fukki fan yii ann hada alqurana mubarakata anzala fiha wa wasafaha subhanahu bi annahu yufraxu kullu amrin hakim mu ne guddi gi taraangaam mooy ci la yàlla wàcce alquran waaye taraangay guddi gi mooy sunu boroom ci lay organiser mbiru jaam ñi ci la yàllay organiser war mbiru jaam ñépp koy feebar ci at mi ci la koy bind ñii dee ci at mi ci la koy bind moo tax ñu tuddee ko laylatul xadri guddik dogal gi gisoo noonu la tudd guddik dogal dogal ci la yàlla dogal mbir yépp xadru mooy dogalu yàlla yi muy dogal yooyu nag guddi laylatul xadri gu ne la koy organiser léegi nga dégg ñu naan juddu yàlla day bindaale wërsëgam bindaale nangam bindaale nangam d'accord waaye mën na changer kañ lay changer yàlla nee na am na benn guddi goo xam damay damay changer waat dossier yi ku ne li ma la bindaloon mën naa ko inchangé waaw bi muy judd ci ndeyam damaa bindoo ni day nangam ma dem ba guddi benn guddi leeral xadri ma xool ko ni mu yiwee xool ko ni mu baaxee xool ko ni muy jëfee taraanga xool ko ni mu mënee jàmm yàlla ma ne xaaral ma dëgg ci lii ba boole ko ci ñi nga xam ne ren laa leen defal nangam mbokk yi kenn ko ne jaayanteel ci guddi ba guddi gi bum ñu rëcc te mooy li may wax rek nañ ko jàppee guddi gu ne <laughs> ah ñi ngi koy jàpp fii ñi di ko jàppee mais déet xool la ma ne ku ci ne jàppal guddi gu ne rek neel guddi gu ne laylatul xadr laa ko jàppee du ñàkk ñu ko jàpp ci 27 daa ñu ànd ak yow du ñàkk ñu ko jàpp ci 26 daa ñu ànd ak yow ñu ñàkk ñu ko jàpp ci 20 daa ñu ànd ak yow ñu ko jàpp ci 22 daa ñu ànd yow daa jàppal guddi gu ne laylatul xadr la mu ne yufsalu min allawxil mahfuz li ma jublu ci ne yàlla ci guddi gi lay régler problème yi mooy guddi gi lawhul mahfuz ci la ko yàllay tegaat mooy tableau boobu yàllay def jaam yi seen seen mbir yépp ci guddi gi la koy tegaat am yu mu influencé am yu mu delloosi am yu mu changé am yu mu déplacé wa huwa kaa'inu min amrillahi fi tilka sanna min al arzaqi wal ajali wa xayri wa charri wa xayri dalika lépp ci la ko yàllay organisé waat wa yaqdihi min umuri xakimati yàlla it atte eh, ci maanaam mbiru xikma gi nekk ci guddi gi mooy laylatul xadri xayru min alfi shahri benn guddi gu jël gu gën junni weer loolu rek xikma la loolu rek benn ngëneel la loolu rek benn taraanga ci guddi gi yaani fi fadli wa sharafi wa kasratu sawaabi lu tax mu ne moo gën junni weer mooy moo leen gën ci tedd nga moom guddi gi moo leen gën ci yiw moo leen gën ci yool moo leen gën ca la ca yàllay defee taraanga julli ci guddi googu ñaari rakka a wuute naag julli ci weneen guddi ñaari rakka def astaghfirullah ci guddi googu wuute naag def astaghfirullah ci weneen guddi mbokk yu guddi googu moom la ñuy wër ci fukki fan yi wa lidalika kaana man qaamaha imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddam min zanbihi ci loolu la ñu jàngatee xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni képp ku taxawu guddi gi Euh, naafila ca boole ci gëm sa boroom nee na yàlla jéggal la mbooleem mboolem loo ko defoon ci ñawteef ci guddig laylatul xadri mu ne guddi googu ñu ngi koy wër ci fukki fan yu mujj yi ngir lan waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi waxoon ne taxarraw laylatul qadri fi ashri al awaqiri min ramadaan muttafaqun alayhi nag xadis bu ñëpp dëppoo ne yonent bi moo ne wër leen laylatul qadri ci fukki fan yu mujj yi xadis bu ñëpp dëppoo la yonent bi moo ne wër leen guddik laylatul xadri ci fukki fan yu mujj yi mbokk yi ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi nu ngi wër di làmbatu kenn ku ne guddi gu ne làmb ci sa loxo neel est-ce que du laylatul xadri kenn ku ne guddi gu ne ci sa loxo neel est-ce que du tey la yàllay wax ma dajeeg moom kon ñu ne guddi la goo xam ni ku dajeeg moom yëgal ni la nga doon dagaan ca sa borom am nga ko ndax guddi gi dafa làmb ngëneel hiya laylatun fadilatun kathira guddi la gu làmb ngëneel yu bari bi ci njëkk ci ngëneel yi an allah anzala fi al quran alladi bihi hidayatu albashariya wa saadatihim fi dunia wal axira bi njëkk ci ngëneelu guddi gi mooy guddi gi ñuy wër bi njëkk ci ngëneelam mooy li ci yàlla wàcce alquran loolu rek doy na alquran mooy kàddu yàlla yi mais guddi gi ñu ko wàcce kay guddi googu tedd na mu ne loolu rek bokk na ci ngëneelu guddi gi mu ne ñaareel bi mooy maa yaddulu alay istifhamu min altaadimi fi qawli wa ma adraka ma laylatul qadri mu ne tegtal wi ci yàlla ne ni muy màggalee guddi gi ba tax muy wax ak yonent bi ba ci yàgg mel ni da koy laaj naan ko xanaa xamoo valeuru guddi gi déggoo inna anzalna fi laylatul qadr ba ci yàgg mu ne wa ma adraka ma laylatul qadr muhammad xanaa xamoo guddi gi ni mu toll xanaa guddi gi ni mu toll mel ni nabi da ko ne guddi gi toll mu ne ko laylatul qadri xayrun min alfi shahri mu ne bokk na ci ngëneel ya anna xayrun min alfi shahri benn guddi gu gën junniy weer xam nga ni loolu gëneel la mu ne bokk na ci ngëneelu ñeenteel ba anna almalaikata tatanazalu fiha wa hum laa yanziluuna illa bi xayri walbarakati wa rahmati mu ne ñeenteelu taraanga wi ci guddi yi mooy guddi gu am malaaka yépp àndandoo wàcc kenn du des asamaan loolu wenn guddi rek ko am muy guddi laylatul xadri sunu borom a ko wax te tanazzalul malaikatu bàyyiwu fa kenn nag wa ruuxu ba ci jibril la wax day ñëwaale kon bàyyiwu fa kenn tanazzalul malaikatu mboolem kuy malaaka te ma yilifoon ko man seen borom fii ci kaw suuf guddi googu dama naan ko demal ci suuf ànd leen ak jibril mu def délégation ànd ak yéen dem ci suuf waaw wàcc googu malaaka yi di àndandoo maas ñoom ñépp wàcc suuf te loolu ñoom malaaka yi duñu wàcc mukk àndandoo en maas lu dul ci yiw ak barke ak yërmande yàlla kon guddi gi làmb na yiw lamb na barke làmb na yërmande yàlla beneen ngëneel bi di juróomeelu ngëneel li mooy annaha salaamun li kasrati salaami fiha min al iqaabi wal adaabi bi maa yaqumu bihi al abdu min taatillahi azza wa jalla mu ne juróomeelu ngëneelu guddi gi mooy guddi gi ni mu amee jàmm parce que jàmm da ciy bëri parce que kenn ku ne danga nga ciy sa morom jàmm ñaanalante ba waxante lu baax la mu ne guddi gi li mu làmb ci jàmm daa bëri moo tax euh, jàmm jooju malaaka yee koy njëkk a ñaan malaaka yee koy njëkk a ñaan yàlla ci jaam ñi tanazzalu malaikatu wa ruuhu fiha bi idni min kulli amrin salaamun hiya malaaka yi dañuy ñaanal jaam ñi jàmm ba kañ mu ne xatta matla il ba keroog ñu naan asalaatu xayrun min an nawmi ci la malaaka yi doog a décolle waat yéegaat ñoom ñépp bàyyi waat ñu fi waaye guddi gi malaaka yëpp dañuy ànd ñëw ci suuf ku ñu romb na yàlla diw mii may ko jàmm ku ñu romb ñoom ñëpp délégation ànd ne diw mii yàlla mayal ñu ko jàmm ku nu fekk nag ci jataay bu am solo lool boo xam ni danga nga fay jaamu yàlla dañuy gën a nag dëkk ca kooku ne yàlla ne diw lu mu la defoon ci mon mbaal ko diw daal yàlla bu ko toppati dara jàmmal ko ba keroog muy dekki sa kanam mbokk yi ngëneel yooyu guddi gu làmb bokk na ca ngëneel ya anna allaha anzala fi fadliha suuratan kaamilatan tutla ila yawm alqiyama bokk na ci ngëneelu guddi ga guddi googu rek am yàlla wàcce wenn saar woo xam ni bopp ba geen guddi googu rek lay tudd mooy saar wi ñu tuddee suratu qadri muy inna anzalnaahu fi leylati alqadri wa ma adraka ma leylatu alqadri leylatu alqadri xayrun min alfi shahri tanazzalu almalaikatu wa ruuhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matlay fajri mbokk yi guddi gi guddig jaamu yàlla la guddi guddig naafila la guddi gi guddi zikkar la waaye Aïcha nee na sayduna Muhammad de bokk na ca baat ba mu miin mu ko ca daan wax muy allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa faafu anna allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa faafu anna mbokk yi maa ngi ñaan sama borom baat boobu nga xam ne yonent bi daan na ko joobe ci guddi googu yal na yàlla nangu ko te mooy lan yow borom bi ku tedd ga yow lu tedd rek nga bëgg yow nag baalekat nga te bëggoo lu dul ko la baalu maa ngi ñaan yàlla nga ma baal loolu nag mbokk yi Muhammad daan nañu ko ñaanal santaane kenn ku ne mu koy ñaan kon kenn ku ne na nga sàlloo ci guddi yii ñuy jëm allahuma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna yal na yàlla bokk nu baal sunuy bàkkaar ñun ñëpp mbokk yi ma teg foofu baaraam waxtu wi dab na ma man ak yéen incha allahu rabbi ba suba ñu del siwaat ci seen jataayu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël satu nabi gërëm nañu ñëpp santaat ñëpp ñaan sunu borom yàlla neel dafa ñu tawfiix ba nu fekkewaat suba man ak yéen di jaayi sayyidul wujudi te nangul nu weer wi waaye dajale ñu guddi gi ñuy wër taraanga yi ca nekk ngëneel ci ne yàlla nañu ko yàlla dajaleek moom ba nu am ko gërëm ñëpp sant ñëpp ziyaara bu baax a baax a baax mboolem koo xam ni soppe nga am di jàmm nga nuy dégganteeg yow fépp nag ñu ngi leen di ziara sama jigéen Zeynabu Cissé ca Soudan ma ziar ko day dégganteeg ñun di bég ci waxtaan yi ñaanal ko yàlla yal na yàlla dolli ko sutura fa mu ne bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu